الله من كل كريم أكرم من آمه قلدلهم تكرم asalaamaaleykum mbokk internet ñoom mooy Dakar Midi naa la ñu loo xam ci xew ci màggal dañ la ko indil ngeen suivre bu baax di leen jaajëfal Ndiogou maa ngi eh, maa ngi lay bëggee bu baax eh, di naan jërëjëf Serigne Touba jaram maam Cheikh Ibra Fall est-ce que sëñ Afia Falilou eh, ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te wër di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmm mu yàgg fii ñaanal Serigne Abo Falilou yàgg fii ah. ñaanal sëñ Afia yàlla yokki leeram yàggal fi sëñ Baara Afia nuyu suma baay sëñ Abdou Samane Mbacke ak jëwrinam di leen ziar yéen di leen bëggee di leen dalal fii ci Ndindi Afia kër Serigne Afia Mbacke Falilou ki ko fi teewal di Serigne Bara Afia waaw. tey màggalu 2020 gi. waaw màggal moom comme chaque année rek. màggal quinze bu 16 moo ko dàq 16 bu 17 moo ko dàq noonu rek bu 19 bu 20 moo ko dàq Serigne Touba moo mel noonu ay affaire am yàlla moo si def avancement bu yàgg. waaw amul tuuti tiitaange ak njàqare ak pandémie bi ñu doon am xel ñaar ne gi dina am wala du am gi am nag. waaw c'est normal parce que ñun ay nit kase lañ xamuñu li war a am suba ak gannaaw suñu xel rek la ñuy demee ay nit dong lañ moo il fallait que euh, yàlla wane na kat nit ñi xamuñ exactement li li war a am li war a am yàlla rek ko xam. est-ce que Ndiogou si yéen nekk saa yi nii. saa yi waaw génnee nañ benn affaire muy Bamba Fadaan. waaw bu dal waaw moom may félicité équipe bi ko def. ñoom euh, DJ Boubs. Bikon Mata euh, Malick. Djili. Woz. ah ak ñi ko ñi ko def ñëpp. leen bëggee euh, après màggal gi dañuy àggali ci promo boobu. promo wu single bi. parce single la bu bu sérieux après si après kii bi am na beneen bu war a ñëw mais instant yi comme que dañ ne ci promo boobu après màggal ci promo single bi la ñuy la ñuy travail incha allah. mais en tant que jànkat yéen waa SODAV joxoon nañu leen si li nga xamante mooy millions yi ñu génne woon pour ñi nga xamante ne pandémie moo arrêté woon yi. non waaw SODAV parce que ñun dañuy inscrire SODAV. waaw inscrire foofu moom amul jànkat wala artiste wala fecckat amul SODAV da ngay am kayit di projet protéger say œuvre lépp lu ñuy muy dërëm muy ñaar dërëm dinañ la woo wala ñu woo sa xamal leen ko quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax kay. afiya rek yàlla na ngeen am afiya jaayeen jëf maam tawfeex tawfeex. allahu min kulli